d'accord alors euh, allez euh, septembre 2023 nga rendre le tablier euh, ci ministère bi nga nekkoon muy ministère de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire on est en pleine en pleine campagne électorale. non non agricole. Ah, ah, ah, en, en, pardon pleine campagne agricole. Euh, lan moo prévaloir ci sa prise de de de décision bi c'est-à-dire yow ni nga bëggee mbay ni nga bëggee baykat yi ni nga xamee solos mbay ni nga xamee mois de septembre euh, mois bu euh, période boobu importance bi mu am nga nekk ministre de l'agriculture parce que da nga am une déconvenue ou une frustration politique nga décider rendre le tablier. qu'est-ce ah. qui a prévalu. aw ma benn frustration xam nga man politique bi ma ciy dugg dugg ci 2012 dama ànd ak président parce que dama koo tànnoon d'accord ci moom bii boo déggoon ne aussi décision bi jël nañ ko mois de juillet juillet lay dem bu doon mai mai lay dem parce que dama am samay conviction te loolu laa doon doxal loolu mooy d'abord benn deuxièmement septembre boobu ngay wax noonu boo seetloo xam nga wane nga fi différents mois bu la neex nga delluwaat ci tableau bi xool presque chaque année c'est en septembre que les remaniements se font man septembre laa ñëwoon boobu nekkutoon ci digg nawet te pourtant ministre laa remplacé septembre 2022 laa ñëw septembre 2023 laa dem septembre 2017 laa ñëwoon intérieur septembre 2013 laa ñëwoon mine industrie président Macky Sall d'habitude day une bonne partie. de ses donc donc c'est pas euh, boobu. dama da nga da nga remplacer da nga remplacer Moussa Balde. Oh, dama remplacer Moussa Balde xam nga ministre moom. aujourd'hui d'abord bu fekkente ne septembre bi ngay wax bu fekkente ne da nga pour baykat yi dama laaj leen ñoom baykat yi ñoom waxuma ñiy wax ci rajo bi te duñ bay baykat yi ñoom xam nañ ne bu dee taxaw rek taxawu naa leen ci noor ak ci nawet ñu am résultats yi ñu am ba léegi nag publier guñ ko. résultats yi ñu am mosuñu ko am ci mbay bi te résultats yi moom li ci ëpp sama liggéey la loolu mooy lii réalité septembre nag bi may démissionné booba fekk na booba daanaka li li ñuy wax ci ñun wolof baykat yi farmanku nañ mooy maanaam xam nga lu desoon ci nawet xaar rek récolte bi jot loolu la ci desoon. xam nga. waaye gis nga waxuma la sax loolu waaye même bu ma fekkoon sax fi nii début nawet. lii amit du ma tere ba. da ngay démissionner. mais bien sûr parce que keneen day continuer parce que mission bi ñu ma joxoon mission moom président dénk la da koy jox keneen rek mu continuer ko mais man ci sama jëm bopp terewul pourtant maa ngi doon bay man damay bay naka jekk xam nga ci dara ñëw nga samay tool jotewul dara ñiy wax foofu ñi ko ci wax yëpp sax du ñu ay béykat. mooy ñuy bay ci rajo bi rek. waa mais la démarche quand même elle est. mais ministre de l'agriculture en pleine campagne agricole xam nga ay eh, bi ñuy porté campagne agricole non non xaara xaara xam nga bu doon Moussa Balde moo def loolu mun nañ ko baal du baykat yow bay non non mun nañ yow li nga nekkee baykat Moussa Balde nekkee ko baykat li nga investiroo ci mbay Moussa Balde investiroo ko ci mbay d'accord voilà dañ yow yow dañ la xamee dañ la xamee kasketu baykat déggoo ma yor ay tool. ma ne di nekk opérateur agricole. dara la ci yàquut yàlla suturaal na ma. xam nga li ci nekk man ak man ak baykat yépp yooyu ngay wax. même bi ma génnee ci tool yi bi ma génnee ci agriculture ñoom ñëpp yàlla suturaal nañu récolté nañ macha allah lu ñu mus a récolté ñi ci ëpp ñëpp ñi ma ciy woo di ma ko wax tous les jours loolu mooy li am solo ñi yéen ñu ci bari ñuy wax bay bi nag xamuñ sax mbay. xamuñ kañ la bay bi tàmbali xamuñ kañ lay jeex xamuñ kañ la nit di dem tool xamuñ kañ la nit di dem tool pour dàq pour xawl ko bañ yàqal septembre bi may laa la wax nee naa la septembre bi may génn agriculture fekk na baykat yi farmanku ci tool yi mooy maanaam amatu dara lu def tool lu mooy bu ngoonee nga dem seen ndax dara yàqulu la fekk na ñu bay ba pare toog rek di xaar cycle bi mat mu ñor comme ni ma ko defee ñu deqi pour ji gerte mais mënoo woon quitter avant day parce que avant li li tax ma quitter amutoon non si non Euh, def ngeen un un processus nga nekk ci processus bi nga d'accord les règles du jeu. non. lan nga d'accordul ci règle du jeu. xam man loolu aussi wax naa ko te du wax na finalement sax bu yàggee daf ñuy tardeel man li ma wax mën naa ko wax fu ne man li ma wax bi ñuy defee processus bi gudd na man maa njëkk a bind président ne damay nekk candidat parce que moom xam ne 2012 lan ma doon sama taxawaay. bi nga xamee ni bii réunion yu bari am na sax benn bi nga xam ne rek laa ci tudd keroog bi ñuy wootee dajale ñëpp man la ma wax rek mooy man maa la tànnoon 2012 parce que yaa ma doyoon 2024 bi ku ma doy lay ànd ak ku ma doy lay ànd ak lu ma koy wax mbooloo ngi toog kenn du ma tànnal aw benn problème personnel avec Massamba dem Mademba dañuy politique liy tudd leneen kiñ ma tàndal sama bopp laa ko gën a wóolu. ma ne damay dem. ki nga tànnal doyu la. waaw ah, tout simplement sama bopp laa gën a wóolu lu kenn terewu ko.